est-ce que mën nañu nangu aujourd'hui Sénégal fu mu toll ci niveau de démocratie que des hommes politiques di des jeunes pour que ñu yàq réew mi ok ce jeune là bi lay étudiant boobu bi lay wax son argumentaire n'est pas acceptable il y a rien qui devrait justifier qu'on brûle la faculté de lettres ou la faculté de droit qu'on brûle le CESTI dara mënu ko justifier mais dara mënu justifier loolu kenn jéem ko mais pourquoi donc yéen ngeen di chaque fois da ngeen di trouver le yi ay ay ay ay ay ay ay nu mu tudd ay ay argumentaire pour justifier leur comportement ok nit ki du question dalay ngàdd nga nga nga dóor ko kuur pourquoi ngeen leen di wutal argumentaire jërëjëf léegi da nga ne est-ce que war nañu nangu nangam ci démocratie ci Sénégal je te retourne la question est-ce que war nañu nangu Sénégal président de la République di xool ku ko neex ne ko yow mii doo dem élection may mun a làmmiñ bu waxul dëgg wax fenn. warul nekk. Ah, waaw mais ma ne làmmiñ bu waxul dëgg day wax fenn Macky Sall situation réew mi moom moo ko indi moom moo xool ay nit ba mu neex ko mu ne ñii duñu bokk ci élection. utiliser justice utiliser beneen subterfuge bu ko mun a neex parrainage whatever ak lu mu mën a doon ne diw mii doo bokk xool ki ko neex ni kii mooy bokk may mun a làmmiñ bu waxul dëgg wax safaan mënuloo wax ñii résister ne leen bàyyi leen résister alors que kii dóore neewoo ko bàyyil dóore kii résister c'est parce que dañ koy dóor donc ki yor yat wiy dóor moom ngay wax ne ko bàyyil dóore bi c'est ça la réalité ces gosses qui sont dans la rue soxlawuñu ku leen yedd may mun a. yéen mënoon ngeen leen yedd. may ba ma ba rek. yéen mënoon ngeen leen ah, yedd. mënoon ngeen leen wax du ñu xeexee noonu du ñu xeex yàq réew mi. xam nga réew mi kenn amul intéret ci réew mi yàqu waaye yàlla. buy alak askan sax ñi ko tooñ ak ñi ko tooñu yëpp da leen ciy boole à un moment il faut comprendre ces jeunes qui sont dans la rue man waxuma ne li ñuy def lu normal la mais dama ne li ñuy def mën naa expliquer lu tax may mun a c'est pas parce que <laughs> yow tu as réussi tu es dans ton coin tu emploies des Sénégalais <laughs> mais oui parce que tu penses que parce que tu penses que man awma problème combien de Sénégalais <laughs> combien de sénégalais yow bokkaloon. <laughs> ku nekk ak say niveau de problème. waaw mais justement. <laughs> mais au moins yow am nga ay problème xoolal xoolal gis nga booy yi nekk ci mbedd mi ñoom dañu bëgg am problème sax te mënuñu am problème yow am nga problème yaa ngi sant yàlla. je ne leur souhaite pas d'avoir mes problèmes. mais ma ne ñoom bëgg nañu am problème xam nga nekk pauvre Sénégal ak nekk pauvre France du benn les gens préfèrent être pauvre en France qu'être pauvre au Sénégal yow say problème yi nga am. te ci jooytu naan yaa ngi am ay problème jeunes yi nekk ci mbedd bi ñoom dañu bëgg am ay problème comme yow pour di ko résoudre et ils arrivent pas à le faire l'espoir de ces jeunes dañ ko rey pourquoi ay njiit yu bon mensonge fen wax lu dul dëgg lekk alalu réew mi seen bopp seen njaboot ak ñi leen wër donc on a tué l'espoir de ces jeunes alors maintenant boo yi nekk ci mbedd mi nga ne leen non non non non votre colère vous ne pouvez pas l'exprimer vous ne devez pas l'exprimer comme ça dama ne a ma conviction c'est que booy yi soxlawuñu ko leen yedd dañu soxla ku leen yërëm parce que yow nekkuloo ci situation boobu yow demuloo ci situation boobu yow yegguloo ci désespoir di sol carax ak short toog 12 heures de temps ci seen bopp koñ mu wóor la ni amuloo dara loo def jàkkaarloog sa yaay mënuloo ko sax jëndal mbuusu ndox boo bëggee euh, su bokk da ngay fexe dem gis sa copain ne ko non booy yóbbaale ma alors ces gosses là waxuma ne li ñuy def lu normal la il faut que ces politiciens également qui comprennent que ces jeunes qui sont sortis c'est pas parce que diw moo leen tax a jóg am na ci ñu jóg pour politique am na ci ñu jóg pour xeex démocratie am na ci ñoo xam ne dañu jóg ngir amertume bi ñu am désarroi bi ñuy yëg ci réew mi te mënuñu ci dara may mun a ces jeunes qui son sortis nañ leen comprendre